soo dégloo waxu Barthélémy Diaz le premier terme de référence du dialogue bi nga xam ne moom la Macky Sall bëgg entre les lignes soo ko liiree mooy que moom am na li ma bëgg lan la bëgg mooy il faut être candidat c'est-à-dire il faut même pas chercher le midi à 14 heures kooku c'est le premier terme de référence du dialogue mm-hmm. ndem wax non man gisuma à actuelle lan la président mën a bëgg ba tax muy dialogue ba tax muy dialogue gisuma ko parce que déjà ci propos il a très clair nee na la question du troisième mandat n'est plus d'ordre juridique. waaw ah, kon lu ñuy waxtaanee la. mooy maanaam politique la. et le droit. déet nee na nekkatul nee na nekkatul d'ordre juridique mooy droit génne na ko ci moom ci déggoowee rek. waaw moom nee na génne na ko léegi ci wàllu droit léegi ci wàllu politique la. mais ñoom bu ñu ci déggee